baaxoo di waxee premier ministre gisaat ne dogal yi ci conseil interministériel bi niroon na ci lu bari ak dogal jël at yi weesu wàll mbënn mi lañ doon waxtaanee ak ni ñuy gàttandoo taw yi mu bëgg nag doxalin wi di demee neneen. kon loolu wane na ni problème bi nga xam ne moo ñu tax a daje ba tey jii gouvernement Sénégal songu ko ko woon ni mu ko war a songee. ñun nag suñu mébét mooy ñu song ko te régler ko définitivement loolu nag dafa ajo ñu xoolaat suñu taxawaay ñun ñëpp ñun ñëwuñu fii en tant que premier ministre pour wax ci technique conseil interministériel yi sax am nañu yéene fii ak at wala ñaari at mu demee neneen dul nii ndax bëri luñ fi wax loo xam ne ay techniciens ñoo waroon daje liggéey ko def ko ci ay documents mu yegsi ci taabul décideur bi pour moom mun a jël décision. taxawaay bi ci waar mu ne état bi dina ko am day laaj nag ay koppar yu takku. te fépp foo xam ne suñu koppar nga fa dañ ko fa jëli soobee yàlla moo xam ci suñu ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy saax saaxe wala yokk suñu capacité mobilisation ci wàllu lémpo réduction du train de vie de l'État waaye it xaalisu réew bi nga xam ne nekk na ci loxo yi moo warul nekk ay nit randal ko lépp dinañ ko def pour alalu réew mi ñu mën koo dajale orienté ko ci besoin sénégalais yi ñëpp xam nañ ni changement climatique am na loolu ñun lañ ci mën bariwut waaye man gëw ma ni loolu mooy vrai problème mu inondation yi ndakaaru gi ñu ne ñun ñi yaroo Casamance gisuñu fi taw bu tax ñuy wax man gisaguma ko fi de problème inondation yi du loolu moo tax su ma nee fexe ba bu moyen bu ñëwee nañ ko dugal fi mu war a dugg loolu dina wundi nii liñ ci jot a def ci ay moyens wax nañu ni am na 717 milliards yu def ci lutte walla ci construction ay ouvrage d'assainissement yooyu nañ ko saytu bokk na ci yi nga xam ne ci fan yi di ñëw dinañ ko auditer ba xam 717 milliards yooyu fan la dugg. leneen lu mu bëgg nag mu dakk ci réew mi tabax yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci yoonu ndox yi. tabax fa avec la complicité des services de l'État ndax su dee lotissement bu régulier diggante domaine ak urbanisme ak cadastre ñoo koy dagg su dee lotissement bu régulier DSCOS waru koo seetaan. bay nit di tabax fu ñu amul kayit amuñu fa titre fépp foo xam ne ñu ngi fay tabax te muy zone non aedificandi dinañ joxe ndigal pour ñu arrêté ko. premier ministre Ousmane Sonko di woo ñëpp ci bëgg sa réew service nguur gi ak askan wi. parce que lu tax changement mënul ñàkk mooy suñu toogee fii tey ñun di wax dafa fekk am na ay yoo xam ne joxe nañ seen bakkan pour changement am ne serait que pour ça. mënuñ ñëw fii di yox yox bëgguma wax mu mel ni da ngay dànkaafu waaye damay wax ñaax kilifa yi fi nekk yépp ñu xam ni on sera très regardant sur ce que chacun fait et à chaque moment les responsabilités seront situées. ñu xamle fi ne benn fan ci weeru juin dinañ amal bésu waajal nawet set setal curage caniveau ak yu ni mel président de la république moo koy jiite. mi ministre di ci woo nag ñëpp